ci parce que ñu dañoo amoon jafe-jafe suñu académie Pikine Guédiawaye parce que élèves yi jóge CM2 di ñëw sixième dañuy bari ba nga chaque année dañuy gën a yokk mais collège duñu yokk lycée yi duñu yokk kon lii dafa nekk loo xam daf ñuy daf ñuy daf ñuy dimbali bu baax ñu am beaucoup plus de classe pour orienter suñu élèves mais aussi améliorer conditions de travail parce que aussi classe bi lu mu gën a bëri élèves njàngale mi gën a jafe mais le élève gëna néw a enseignant bi gëna performant xale yi gën performant aussi parce que dafa am relation bu nek entre l'accès et la qualité jafe-jafe bi ñu am moy élève dañu bari classe du bari man léegi on se trouve avec des ratio élève classe de 117 élèves par cas xam nga lool mom dafa jafé pour un professeur pour mu jangal leen kon investissement yi mi ngi talal loxo encore suñu maire monsieur Abdoulaye Timbo vraiment pour mu jàppale waat ñu ba ñu gën a améliorer accès bi ci collège ak lycée yi ñu yokk salle de classe même bu ñu mënee am ay collège yu bees ak lycée yu baax encore bees dañuy dañuy dañuy jël te loolu bu ñu ko amee dina tax ñu gën a ñu gën a yokk suñu performance ndax dafa am relation bu nekk diggante condition de travail yi ak résultat élèves yi

chaque année aussi mu mu mu datuñu en table banc. li ñu fi indi woon tey mooy di xool liggéey bi nga xam ne dénkoon nañ ko entreprise bi ñuy wax Kayfa saytu seet fan la toll ci liggéey bi euh, li ñu ci mën a wax mooy suñu xool sedd na ci parce que wax dëgg fa yàlla bi biñ ko ko dénkee ak léegi yàggul lool. mais bi ñu gisee fi liggéey bi tolloo daanaka mën nañu wax ne li ci des mu jeex mu pare dëgg-dëgg pare bëreetul. amna nak euh, ben parti bo boo xam la bokul won ci projet bi bi ñu koy lancé mais demande la muy euh, bloc administratif bi bi ay bureau principal beeg salle des profs yeeg yu mel noonu mom mo nga ne la ñu commencé te suñ ko gisee ni wax dëgg fa yalla moom it mu ngi avancer bu baax a baax te rythme bi baax na japp nañ ne daal lool lepp euh, fi ak fin décembre inshallah allah rabbi jàpp nañ ne dina wara mëna fekk lepp luñ fi def muy liggéey ñu paré ko waaw li ñu ko xayma projet bii dafa bokk ak projet wu CM bu Mbaaw lépp bu ñu ko xayma dafay toll ci un milliard deux cent soixante seize millions huit cent mille euh, partie bi ci gën a rëy nag wax dëgg fi yàlla fii la féete ci CM bi parce que CM lu Diop déjà dafay am vingt deux salles de classe ak euh, le bloc administratif euh, muy parti bi gën a rëy ci projet bi donc mu ngi fii ci CM Mbaaw muy mbégte gu rëy pat ko pour que xale yi nekkat ci condition yoo xam ne mooy yi gën ndaxte classe yi bu nawet daa jot classe yi ci gën a bëri da dugal ndox.